fës ci yéenekaay yi xët yu njëkk yi moom moom mooy si alarba euh, bii nii euh, ñu tàmbalee ko ci journal l'info journal l'info lu ñu wax nag moom mooy ay intellectuels ñoom ñoom ñoo wax ci yu nga xamante ne moom moo di euh, dàq gu ñu dàq élection présidentielle yu 25 février 2024 ñu ne ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi ñoom fipp nañu ñoom ñu def benn bataaxal bataaxal bu nga xamante ne ñu ngi ciy wax ne Macky Sall ci lu mu basé wu ba bind ba daq li nga xamante ne moom moo di élection yi du dëgg du yoon tegu tegu ko fenn euh, déjà dafa salfaañe li nga xamante ne moom moo di vingt 27 ak 103 yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo lal euh, décision yi nga xamante ne mag président Macky Sall moom la jël ndaxte kenn mënul euh, wàññi wala di yokk ay mandat yoo xamante ne yow dañ la faloon euh, ñu ci gën a ràññee nag ci ñooñu mën nañ ci lim professeur Babacar Gueye Felwine Sarr wala sax professeur Mamadou Diouf enquête tamit ñëwaat na ci loolu enquête di wax ne bu intellectuel yi waxee société civile tamit ñoom daanaka wax nañu. ndaxte euh, jàmmarloo yoo xamante ne ñu ngi koy jàmmarloo ak dàq gi ñu dàq euh, présidentielle yu 25 euh, février 2024 du dëgg du yoon loolu journal bi moom moo ñu ko wax di ñu wax tamit ne am na grève générale boo xamante ne ñoom ñu ngi koy wàcc ba noppi aussi di ci def benn campagne ci internet bi di wax ne Macky amul droit benn yoon di àcc. ay élection wala muy jéem a yokk ay mandat bu weesoo ñi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi société civile presse bi tamit mobilisé wu nañ Sud Quotidien moom moo ñu xamal loolu ñu ne ak ak yelleef nit ñi fokk rek ñu fonk ko ndaxte waa Walfadjri dañu jël seen licence bi nga xamante ne moom la ñu yoroon ngir di mën a jàllal seen i xibaar di euh, di informer ñi nga xamante ne ñoo di askan wi euh, léegi nag presse bi yëpp taxaw nañu nee nañu dina ñu ànd nekk benn di xàccandoo di dóorandoo naate dinañu def benn édito Euh, maanaam ay euh, bind benn euh, article boo xamante ne ñëpp ñoo koy publier ba noppi tamit dem fële ci Walfadjri di fa fanaana bu ko jaree sax ñu waxtaan ci ak ki nga xamante ne moo di président Macky Sall ngir ñoom waa Walfadjri ñu delloo leen seen licence ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa témoin ñoom ñu ngi wax ci li nga xamante ne moom moo jëm ci organisation internationale di wax ci euh, reportu euh, mandat wu président euh, Macky Sall ñoom ñu ne ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew ñoom ñëpp daal ñu ngi wane seen tiis ak seen jàqare ci Sénégal ndaxte élection yi dañu ko aj ñoom waa mooy ci loolu ñu ñëwaat Walf Quotidien Walf Quotidien ni Macky Sall moom dafa wét daanaka ci dogal bi nga xamante ni moom la jël ndaxte CEDEAO Euh, dañ koy dànkaafu ñi nga xamante ne ñoo di médias yi nekk bitim réew ñoom tamit ñu ci tey ànduñu ci ëllëg di wax ni mbir mi mu ngi bëgg a jégg dayoo ndaxte am na ay député yoo xamante ne dañ leen jàpp bien que sax bàyyi nañ leen ku ci mel ne Guy Marius Sagna wala Abbas Fall loolu Walf Quotidien moom moo ci ñëwaat les échos les échos def xëtam bu njëkk député Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ne dañu tase woon ba ngir layal président Macky Sall ci dogal bi ñu jël ñu ne Abdou Mbow moom moo ko jiite Abdou Mbow moom dafay wax di expliquer lan moo tax ñoom ñu jël décision boobu voté ko ci euh, élection présidentielle yu ñu waroon dem ñu mujj ko fomb ñu ngi ciy wax tamit ne am na ñu bëri ñoo xamante ni dañu booloo ngir bañ ne duñu lank ne duñu dàq élection yi am na ñoo xamante sax xame nañ leen ñoom jot nañu démissionné ku ci mel ni Awa Marie Coll Seck wala Madiou Biteye ñoom euh, démissionné nañu euh, ci lu nga xamante ni ci côté président Macky Sall ndaxte ñu ci li nga xamante ni moo di dogal bi wàllu observateur ñoom ñi ngi ñëwaate ci dogalu président Macky Sall dàq élection yi wante ci wàllu koom ndaxte nee nañu li nga xamante ni dàq nañu élection yi am na njeexital ci koom-koomu Sénégal ndaxte li nga xamante ni moom la ñuy liggéey euh, ci wàllu production ci internet bi wala sax ci mbay dafay wàññeeku bu baax a baax ndaxte ñaxtu yi daanaka fépp lañu ko nemmeeku ba noppi soo xoolee ndaw yu bare Euh, liggéeyuñu euh, ñi nga xamante ne ñooy euh, ñiy jàngi jàngeetuñu loolu dafa am njeexital ci dundinu nit ñi te dinañu am benn grève général boo xamante ne syndicat yi ñoom ñoo ko waajal loolu moom moo tukkee ci at aj bi nga xamante ne président Macky Sall aj na ko élection yi wante l'observateur mu ngi ñëwaat ci Karim Wade ñu ni Karim Wade li koy yott xamu ko sax ndaxte moom lu dal Soham Wardini mën na ko dal ndaxte euh, dafa def benn déclaration boo xamante ni dëgg lalu ko le côté yow Vox Pop mu ngi ñëwaat ci États-Unis États-Unis bi nga xamante ne ñoom ànduñu ci reporter élection yi ñoom ñu ngi koy wax fii ci euh, Vox Populi euh, journal bi tamit di yaatal xatum bu njëkk député Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ni ñoo tase woon Abdoul Mbow di ko jiitee ñu ne euh, lépp parewul woon ngir mën a dem ci ay élections loolu Abdou Mbow moo ko wax euh, journal bés bi ñoom ñëwaat nañu ci diggante Macky Sall ak Amadou Ba ndax dafa am ay jafe-jafe ñoom Macky Sall Ba ñu ne euh, mbir mi fokk ñu tey ci xoolaat ko journal bi tamit mu ngi ñëwaat ci ki nga xamante ne moo di Boun Dionne bun Aly Ngouille Ndiaye ak tamit euh, dialogue bi nga xamante ne mën nañ ko dëgmal président ma gisaal wax nañ nañ ko waxtaanee wante journal bi mu ngi wax tamit ci Bassirou Diomaye Faye ak jàpp yi nga xamante ni jàpp nañ ci Abass Fall wala sax Guy Marius Sagna loolu yéenekaay bi ñëw ñëwaat na ci bu baax a baax ñetti député Pastef ñoom ñoom lañ tegoon loxo police. Euh, sécurité sûreté urbaine moom ñoom ñoom ñoo leen tegoon loxo ku ci mel ni Guy Marius Sagna wala Abbas Fall wala sax capitaine Seydina Omar Touré ñoom tegoon nañ leen loxo wante bàyyi nañ leen ñu ni Parcelles Assainies Pikine ak Kër Mbaye Fall amoon na jàmmaarlu yu métti métti diggante takk déer yi ak ndaw yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon ngir ŋàññ li nga xamante ni moom mooy dàquk élection yi Oumar Gueye Seck Euh, ñu ne moo nekkoon euh, ministre d'État di jiite ITIE moom tekki na ndombal tànkam ginnaaw bi nga xamante ni Macky Sall wax na ni dafa yokk lii di mandaawam Le Soleil ñëwaat nañu ci ñoom nee na dañuy leeral leeral goo xamante ni ñi nekk ci njabootu Macky Sall ñoom ñoo ko def Abdou Mbow ak ñi mu àndal ñu ne ñoom dañuy leeral lan moo tax ñoom ñu voté loi bi nga xamante ni moom moo dàq élection yi euh, L'As Quotidien si ñëwaat na ci loolu ci Benno Bokk Yaakaar lu ñu def mais ñoom fii Benno Bokk Yaakaar ñu ngi dal ci kaw Yewwi Askan Wi ak Taxawu Sénégal nee na waaye Yewwi Askan Wi Taxawu Sénégal seeni député mérité wuñu sax nekk biir Assemblée nationale ndaxte saaga xaste ak saboté la ñu nekkoon Assemblée nationale bi ñuy voté loi bi nga xamante ne moo dàq élection yi te loolu ñoom waru leen journal bi tamit mu ngi euh, jox kàddu ñi nga xamante ne ñoo di waa PDS waa PDS euh, ku leen jiite di Mamadou Lamine Thiam ñoom euh, ñoom ñoo sooke lépp ñu ñoom ñoo lépp ndax ñoom ñoo initié loi bi nga xamante ni dañ ko vote assemblée nationale ngir ñu dàq élection yi sur ça ñëwaat na ci jàmmarloo yi nga xamante ni ñaari fan yi amoon na. ci biñ ne dañuy euh, aj élection yi euh, ñëwaat na journal bi tamit ñëwaat na ci lu nga xamante ne mooy recours yu ñu def euh, war ko def conseil constitutionnel nee nañu ñi nga xamante ne ñooy juróom-ñaari magistrat yi nekk conseil constitutionnel am nañu liggéey loolu suuf saa moo ci ñëwaat ñu jeexalee ko ak yéenekaay bi di stade stade ñoom di di samp ab laaj ci ki nga xamante ne moo di Aliou Cissé ñu ne ndax sénégalais liñ doon wax dëgg la wala du dëgg Aliou ndax mën na. Euh, yore équipe nationale bi euh, ndaxte Sénégal dafa lajj fi nga xamante ne moo di Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire bu 2023 ñu dóor leen euh, journal bi tamit am na benn benn fenêtre bu mu jagleel ñi nga xamante ne ñoom waa Nigéria waa Côte d'Ivoire ñu ne ci demi-finale yi ñoom ñooy favori jëm ci Coupe d'Afrique bu nga xamante ne moom la ñuy amal ci Côte d'Ivoire Abidjan enfin Côte d'Ivoire 2023 loolu le stade jeexale Aïcha Diaby. léegi mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak Euh, Pape ñu ngi lay xaar nga fekki suñu fii ci studio bi ko defee ah. ñu yaatal xibaar yi léegi léegi léegi léegi lay doon mbokk yi des leen ak ñun nag bu bàkk bi noppee léegi léegi ñu dikkaat ci plateau bi